dal leen ak jàmm mbokk internet yu IYAT TV mën nañu nag Idrissa Seck dafa mel ni kuy bëgg a sérieux ci combat bi nga xam ne rek mi ngi koy mëne ci jamono yi ñu toll nii mu def nag benn révélation bu nga xam ne bu doy waar la moom mii di Idrissa Seck nag jot a taxaw défense défendre ki nga xam ne moom mooy kii di président Ousmane Sonko rawatina nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci parti d'opposition bi nekkat moom dina jël responsabilité am taxaw ci kanamu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy presse internationale bi xamal leen njuuj njaaj gi nga xam ne kii di président Macky Sall mi ngi ko nekk ci réew mi rawatina nag lu jël ci wàllu troisième mandat bi nga xam ne ñi ngi koy jaabaa jonge boobu ba tey mu ne nag bu fekkente ne jar na sax ba diwaanu Amérique moom mii di président moom mii di Idrissa Seck mu ne mbir mi dina ko ko jaral dina fa dem dénoncer ko ba ñëpp xam que ne kat Macky Sall day foowee réew mi di Sénégal mu yokk sa ne dina défendre tamit problème ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ci international ndaxte kat mbir mi dafa mel ne national bi mënuñu ko lijjantil suñu bopp fii ci biir réew mi di Sénégal te li ko waral xam ne rek nemmiku nañ ko fii ci biir réew mi ba tax naka bu ñu sàgganul troisième mandat am dina ko daal di approuvé moom mii di président Macky Sall moom mii di sa Seck naka yëkkati kàddu yi ni mel daal di koy xamle kënikat jamono bii ñu toll nii naka mën nañ ne caaxaan faaxee dafa jot te tamit jaadu na yell na ñu daal di taxaw bu baax a baax a baax a baax fa seenee wax ak président Macky Sall ne ko naka saa suuf paaw paaw pum jeex na doy na suñu réew mii soxlawuñ ci yow lii di troisième mandat moom mii di Idrissa Seck nag daal di yëkkati kàddu yi ni mel di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di wéy di abonné ba beneen ñu di kat ci yeneen i jàngate jaa ngeen jëf